acca salaamaaleykum mbokk internet yi suivre site bi di wasaare comme ni ngeen koy gisee ñu ngi fii si Grand Yoff quartier Darou Rahman 2 nekkee fii ci diwaanu Grand Yoff li ñu fi wootee nag nekk mbir mu doy waar ndax imam bu ci jàkka ji di wuyoo ci tur imam moom moo daal di réer depuis lundi ba léegi ay mbokkam gisuñu ko nekk di ko wër mu nekk mbir mu doy waar boo xamante ne ni moo tax ñu woote waa wasaare ngir ñu ñëw fii jàppale leen ci li nga xamante moo di recherche bi ndax imam Maam Tidiane Tall moomu euh, rendi ba mu jullee tàkkusaan ba pare euh, te lu julli timis ci la génn euh, dem ba léegi ay mbokkam gisuñu ko xamuñu fan la dem ñu ngi nag ñoom tak ñu ci li nga xamante ni moo di wër bi waaye ba léegi amaguñu signe ci ki nga xamante ni moo di Imam Tidiane loolu moo tax nag waa Wassare ñu ñëw fii ngir jàppale leen ci li nga xamante ni moo di recherche bi ñëw laaj leen ndax Imam moom mu ndax mosul am problème mu bët wala mosul am tamit kenn koo xamante ni mos ak moom ci li nga xamante ni indil ñu ci ay leeral ci mbir mi naka la demee ak imam moomu ndax bi muy génn moom kese moom moo àndoon wala àndoon na ak benn xale wala mbir mi naka la demee ndax imam yor na téléphone waa wala déet xalil damay dugg ci biir kër gi rek bu ko defee mu mën a gis soxnaam wala kenn koo xamante jege na imam mu mën ko laaj mu mën ñu tontu ci mbir mi mën ñu si indil ay leeral waaye dinañu def ci numéro bi tamit ci affiche bi numéro euh, ay mbokkam kër di imam xalil bu baaxee rek nga daal di may topp ma dugg ci biir ay mbokk imaam tàllal ko micro ñu indil ñu mbir mi ay leeral ci mbir mi. kilifa gi nuyu nañu la. waaw ñu ngi lay fay. nañ la nga présenté wu mbokk maa ngi tudd Seydou Ly waaw. Euh, maam euh, mbokk laa ci famille bi sama grand frère moo nekk xëy na dafa nekk en kii émotion moo tax mënul wax waaw daanaka daal depuis lundi rek depuis lundi ñu ngi koy wër ba ba léegi gisuñu ko bon bu mu Euh, ànd na ak xelam ànd na ak léppam daal bon wër nañ ko nag ba sonn eh, gisuñu ko te moom amul kenn xaar ma yàlla ñëpp la amal jàmm amal na fi daara amal na fi ñëpp daal loolu la. Euh, lundi ban heure la génn exactement. di ci ngoon gi nga sell soxna si nuyu nañ la. maaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. nga ci paa bi. soxnaam la. waaw. est nu mën nga ñu ñëwalaatal ci mbir mi nan la demee. mbir mi de moom imaam la ci koñ bi lënd bi paase moo leen jiite tisbaar bi jiite leen tàkkusaan bi julli na foofu ba wasifa ñibbisi fii ci kër gi jël téléphone bi génn boobu ba léegi nag dégguñu ci moom dara. Mhm. yan la génnoon moom. ay 18 heures yooyu rek. Mhm. Mm, boobu jóge na jàkk ji kay mm, boobu dem na ci jàkk ji ba ñëw kay ba ñëwaat ci kër gi. atam ci ñaata la war a toll. xaw ma ay atam nag. Mm-hmm. génn du ànd ak kenn amul problème mu bët wala. musul génn moom kese moom dem bu ne bu amul fii si kër gi ku mu àndal sax doomam lay àndal bu amul si koñ bi ku mu ànd doomam lay àndal moom du nangoo dem moom kese ah, déedéet musul naax naax kay topp ko. ànd ak nit rek comme ça bëgg bëgg ku mu ànd rek bëggul wéet moom bëggul nekk moom kese nde woon noo day jàngale jàngalekat la euh, souvent xale yi di la wër doo bëgg nekk yow kese mbaa am ay taalibe yu mag yi muy jàngal fii ay sariya waa moo tax tàmmul nekk moom kese buggul nekk moom kese it moo tax nag fu muy dem fu ne day bëgg ànd ak nit. moom c'est la première fois mbir yu mel nii dal ko wala. voilà la première fois kay. Mhm. dem ngeen gendarmerie police wala. waaw dem nañu gendarmerie dem nañu police kay. Hmm, déclaré nañ ko. Hmm. mais depuis ba léegi amu leen ci benn information. nouvelle ci moom. Eh. Hmm. mais yéen a ngi koy wër daal. waaw ñu ngi koy wër boole ci encore muñ muy mu doon lu metti si ñin it mbokk yaa ngi fi xarit yaa ngi fi am di jàmm yaa ngi fi démb ba léegi kenn amul jàmm kenn amul salaam ñu ngi koy wër fu ne ñu ngi koy seet fu ne. def nañu ay ñaan def ay sarax def nañu lu ne waaye mënuñoo fexe ba gis ko depuis lundi ba léegi te depuis lundi. d'accord amul kenn ku mu joteel ci koñ bi wala déggu leen ku ko mës a tëkku wala loolu. xamuñu gisuñu kenn ku mu joteel amul kenn it ku koy topp bor it boo xamante ne bii war na koo jaaxal amul moom daal ku baax la ku yéwén ku rafet xol ku yaatu xol ku xajal nit ñi ci këram bii la. am amam néew na lool waaye xajal na ci mbokk xajal na ci xarit xajal na ci am di jàmm ku yaatu xol la imaam ku yaatu xol la macha allah waaw ku bëgg na ay doom yu góor yu mag wala. waaw samay doom yi mu am yëpp maa ko jur waaw man man mii kese la am si jabar amul beneen man kese maa am njaboot bi ñoo ko bokk ñun ñaar yàlla mu ngi ñuy suturaal waaw. Mhm. ñu ngi am lu néew waaye ñu ngi ciy dundal njaboot bi di ci dundal famille bi yëpp incha allah. d'accord yal na yàlla doolu sutura te ko ci jàmm. yaa rabbi amin amin euh, maa ngi lay fay. tur nga ci paa bi. la ñoo bokk baay mooy suñu taawu kër. maam kañ nga ko gëj a gis. altine daal ci ay 5 yooyu dem na jiite juma ba ñëw ba ñibbisi ci kër gi. tàggu fi sama tànt da ma ngay dem te sama beneen mag bu góor bi marché ba guddi daal ñëwul ñu woote foofu ne kooku ne ñëwu fa loolu daal lañ ci am waaw. imaam dafa doon faral di génn du ànd ak nit wala moom kese moo doon demal boppam. moom kese moo doon demal boppam ndax moom mosul am benn problème mu àddina moo doon demal boppam mosul am benn problème mu àddina déedéet. amul mu bët wala problème mu neen. déedéet amul problème bët. amu ko. ay atam boo ko xaymaa ci ñaata la war a toll. ci ay 60 ans lay toll. waaw musul naaxul aussi. musul déedéet musul naax. la première fois mu koy dal wala. c'est la première fois kay bi koy mosu ko dal la première fois bi yoon mosu ko dal. juddoo ba tey mosu ko dal. dafa am loo xamante ne ni dañ ko jote ak nit ci koñ bi waanaam ko koy tëkku wala amul kenn problème fi ah dégguñu kenn tëkku ko de waaye xam nga Sénégal réalité Sénégal moom fu ñu mënta dem dañ naan naawtal la waaw loolu de lañ ñuy wax yàlla na ka xam waaw waaye fu ñu mënta dem loolu lañ ñuy tegtal waaw parce que lii mosu def ñi leen jot a wax que ne naawtal la waxuñu leen ban côté la nekk exactement. zone de capitale daal lañ ñuy wax même localité bi fa ko jotoon a feeñal fu mu jënte nga tombe téléphone am fay amatuñ fuñ ko jot. yoroon na téléphone. yóbbu na téléphone am matériel téléphone ay pièces am ak lépp yóbbu na ko. Hmm. waaw dem nañ police grand yow. déedéet ba tey waaw waaw xanaa doomam taxam bu góor bi de booy dem mu muy dem ñooy ànd waaw ah tàggatoo bi ñuy tàggatoo ko xanaa di ñaan dimbal ci sénégalais yëpp fépp bu ñu gis imaam Cheikh Ahmed ci jaan jàppale ñu ci numéro bi mooy joxe na 77 264 45 98. d'accord jërë ngeen jëf. Euh, sëñ bi ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di siyaare lañ nga ci imaam bi. imam bi taalibeem laa presque aussi sama papa du génn suñu kër tout le temps mu may nemmee ko ci yooyu noonu. est-ce mën nga ñëwalaatal si réeru imam bi nan la demee. ah père père bi de depuis vendredi vendredi la am na changement. changement comme nag maanaam daan lu mu comme ni moom moo doon xutba jour boobu la. moo constaté ni dafa am changement et tout rek nu mu doon mel nit ñi léegi mooy loolu. même yan genre changement la amoon. non comme saa nii nu mu la daan ay nuyoo ak yooyu noonu léegi du ko sax day ñëw jox la la ko def nga kooku mën nga ne il n'est conscient te aussi musul génn di dem du dem kat jumaa jii nii lay ñëw su jógee si jumaa ji mu dem si daara ñun la fay jàngal wala mu ubbi kaamilam di jàng à tamit aussi wér. su wérdul moom jeex loolu daal kon su ma déggee ci say biir wax ajuma la commencé changer tout ajuma ñu dañoo dañoo gis kii réaction am ajuma bi léegi si lañ xam ni comme ni conscient wul woon période yooyu mooy loolu mais yàlla rek a xam fu mu nekk wax dëgg yàlla ba heure la génn ban jour aussi takkusaan lundi bi moo ñu jiite takkusaan ñu jiitee ba pare après si la dem mu ne mu ngi dem marché mais te moom xamuñu fan la dem am na ñu ne mu ngi zone de captage ñii ñu ngi ne mu ngi feew ak fële. moo ñoo ko gis ne leen mu ngi zone de captage wala. ñoo xam ne nee nañ gis nañ ko zone de captage waaw wax dëgg. marché lu mu fa daan wuti dafa am lu mu fa daan jëndi woon. rakam foofu lay liggéeyee loolu la tàggoo mais mujjul woon dem ya léegi depuis lool ñu ngi koy wër nag mais kenn xamul fu mu nekk interpellé nañ police dem nañ fépp. bu ngeen xaymaa ay atam ci ñaata war a toll exact. non dafa daan faral di génn di dem yoonam wala mu ngi koy soog a dal. lu dul farata du génn loolu moom man mën naa ko dul farata moom du génn problème mu xel aussi wala. non mosul am dafa yorul téléphone wala yor na téléphone. téléphone mais téléphone actuellement dafa fay. waaw premier jour woo ngeen ko jot ko wala jotu leen ko. boobu jot nañ ko mu ne mu ngi ñëw mais depuis lors amuñu ay nouvelles ngeen ko waaye jot ko laaju leen ko fan la nekk et moom daf lay ne mu ngi ñëw loolu kese loolu kese la lay wax dëgg yàlla. kañ ngeen commencé woo bañ koo jot. Hmm? si guddi si lundi bi si guddi si après ay minutes yooyu depuis loolu ba tey mënuñu ko jot. amul kenn ku mu joteel si koñ bi wala déggu leen fenn ku koy tëkku wala. amulul problème ak kenn lu baax rek lañ ko xamal amul problème ak kenn ñëpp la boole yemale leen loolu moom yaakaaruma ko ngeen commencé dem ci rajo yi wala télé wala site internet yi. démb lépp def na démb lañ commencé lépp def nañ lépp démb waaw. waaye ngeen commencé seen annonce ba léegi amu leen benn nouvelle ci moom. ñu ngi si nit ñi dañuy naan mu ngi fii après ñu dem foofu après ñu seet ba sonn mais duñ ko gis. ngeen laajee tamit amul ñu naan leen dafa déplacé wu et tout. non non dañ lay naan am na ñu la naan romb na fii mais soo fa demee dem doo ko gis yàlla rek a xam. kon dem ngeen ci sëriñ yi aussi ñaan lu xool fu ba xam. mën yëpp def nañ ko. nit ñi aussi lan lañ leen wax. dañuy naan seet leen rek après yàlla dina ko andi après ñu toog dese yàlla rek. boobu mënee joxe numéro boo xam ne ko ko gis mën na la fi woo. non mën nga jël mën ngeen jël sama numéro mën ngeen mën naa leen jox numéro doomam tamit bon yow 77 263 42 19 loolu sama numéro la waaw 77 263 46 26. bi nuyu naa la. waaw fay nañ la soxna si. tur bi nan la. ma Tamsir Cissé laa tudd. sir lan nga ci paa bi. waaw ma paa bi moo ñu yar depuis xale ba ñu màgg ni moom mooy jàng fi arab plus que moo ñu jiite jàkka tout ça moo defar arab baa ngi ne moo ñu defaral lépp daal waaw. d'accord lan nga ñu mën a wax ci réer bi. non réer moo franchement parler depuis depuis lundi ba tey jii nii nii nii ba léegi amuñu jàmm parce que paa dafa dem jiite ñëwaat ay 17 si lañ ko wooyee bu ñu ko wooyee ba léegi nii déggaatuñ ko mais après dañ ko bi ñu ko waatee si guddi si après Sénégal yi foo nekk moom mu ngi après bi ñu ko waatee noonu gisaatuñu ko après portable si la fayee si ëllëg si ñu woo ko ay subateer bi ñu ko woowee subateer noonu ñu jokka moom tuuti mu après téléphone fayaat bu mu fayaatee noonu seen ko localisé fenn zone de captage waaw mais fu ñu ko localisé foofu ñu dem nañ ba foofu dem nañ ba foofu ak police ba ak police def nañu tout daa pour foofu dugg nañu fépp mais gisuñu ak affaire ba léegi depuis lundi ba léegi ñu ngi si nii nii nii nii sax fee lañ jógee yaraax aan par droit dem nañu fu ne daal moom waaw. bi ngeen ko woowee mu ne leen mu ngi si tawoo est-ce que jot ngeen a dem si tawoo xool ba xam na. non non non non. non bu ñu ko woowee nii seetoo ni mu daa wax nu sax mu ngi woon foofu mais après gars fekk affaire bi siwagul siwagul quoi mais waa famille ñoo def erreur maanaam fa lañ def erreur ñu ñu si comme dëkk ñu ñoo fi nekk ñu gis nañ ne fii ñuy jaabante mais ñun eh, eh, eh, ñu jàpp ñu woon maanaam affaire bi quoi affaire loolu la ñu doon jàpp comme genre malade malade ñoom ñooñu ko nëbbu ñoo suñu ko waxoon depuis lundi au commencement au commencement di si début bi mu si guddi si noonu sax au moins sax ñu ko waxoon ñu ñi oh, moo comme lu ñu def ni nii moo comme lu ñu def ni oh, oh, moo dem a barke démb tey jii ni ñu dañ koy def mais maanaam ñu wax ñu ko dañ ko nëb baaxaa ba affaire ba affaire ba ëpp loxo ñu soñ ko wax. dañ leen ko wax waa waa kër gi. Oh, ñu waa kër gi ñu waa kër gi dem lañ ko wax waa oh, ñu dem lañ ko wax ay moo ay 7 heures du matin 7 heures du matin suñu rakk ñoo ñu yeesa jeesa nee na du Moussa waxee lala moom mu ne ma yéegul li xam ñoo ko lala om oh, suñu waxee xam ma passé ni depuis dem ba léegi gisuñu ko nanga nanga ak affaire yooyu depuis booba daa bi ñu ko waxee ba léegi ni sëriñ yeewoo te duñu lekkuñu naanuñu depuis dem ba léegi ni sonn nañu wóor nañu fu ne fu ñu fu ñu wax fu dem nañ fa waaw def nañ ci sëriñ ñu ngi wax feela ñu ngi wax feela def nañu fee instant ma loxo yàlla moo fi moo fi sës ak loxo gendarmerie instant ma ñu si mën a jàppale gannaaw gannaaw loolu. première fois ngeen woo ko jot ko deuxième fois ngeen woo ko jot ko kan ngeen nemmeeku nga ne paa bu ngeen ko woowee du ngeen ko jot. Euh, ma maanaam ay ay ba 9 daal lañ ko waat waa jotaatuñ ko waa eh, mais si lundi Euh, euh, mais si lënt bi si ko woowee si guddi si noonu mu wax maa ngi ñëw maa ngi maa ngi seetoo depuis booba tey bi ko waatee jotoon nañ ko mais après daa portable daa fayaat si ëllëg si lañ ko waat si ay si guddi si ko waatee bu si waatee neuf noonu neuf si suba si ah mu si mu ko jot après waxu portable fay eh, mais ñu eh, mais ñu dem nañu ba fenn zone capitale waaw yow foo la nekk depuis 9 heures ba ba ba léegi noonu sax ba 20 heures sax ba 22 heures foo la nekk di xool di lii eh, mais seen i laajte maçon yi eh, mais maçon na ñoom gis nañu paa bi mu yurdu maçon xam nga seen ko expliqué ñu nous sommes policiers seen ko expliqué policier mais policier bu ñëwee ñoom dañoo dugg ci ñu vérifié ñu ñu vérifié affaire waa moom si gàll bi ñu waxoon foo leen soupçonné ah xam nga foo leen nekkoon ak localisation fu nekk seen ko xoolee mais bu fa demee fa yàlla fekk ñu foofu dara ba léegi nii jusqu'à présent waaw. kër gi ngeen ko kër gi ngeen wax ne foofu la duggoon kër gu ñu tabax ba pare la wala kër gu ñuy tabax pareegum la wala kër la. non kër ga moom ma kër ga ma kër la moo xam euh, mu lee obèse la ñu ne quoi obèse waaw moo moo fa nekk noonu mais eh, mais obèse moo fa nekk mais waa koñ bi dañoo waxoon su ñëw euh, ñoo xamuñu woon sax mu yow yow dem lañ koo xam ñu bëri si koo xamee nag waa eh, waa euh, non loolu moom. waaw c'est c'est en trois boo la nekk waa l'occasion l'occasion waaw waaw voilà mu si côté boobu si benn salon noonu daal la nekkoon noonu waaw. amul problème mu xel problème mu bët wala problème. non pas moom pour l'instant mooy ça mentalement mais eh, mais li woon xelam bi mu dama ko yo commencé woon nank nank waaw ñun ñëpp moom moo ñu yar quoi moo ñu yar moom loolu musul def loolu noonu musul jéeg saa rek dem baay fi ay njabootam lii du asaat waaw lii loxo moo ci nekk ndax nit ku jiitee nit ban loxo exactement nit moo koy def nit mooy soxale nit rek def ko waaw ndax ñun bu ñu amee programme si koñ bi paa moo fee njëkk su bu ñuy tudd ay doom fii nii bu ñuy maye ay sëyeeg lépp paa moo koy def waaw mais lii du loxo kii loxo loxo moo si ne. kon da ngeen a jàpp ne dañoo xabtal paa bi wala dañ ko kidnappé wala. noonu la demee sax xabtal la dañ ko xaptal ndax trent ans paa bi mu ngi si koñ ñun dañoo judd fekk ko fi ñun ñii ñëpp suñuy ngénte paa bi moo taxaw assisté bu ñuy wàccee kaamil fii moom la ñëw waaw loxo la moom mooyoon doon si jumaa ji. loxo kase moo si ne. d'accord yéen da am soupçon que ne dafa am ku mu joteel ku mu xulool ba mu war ko xabtal wala. non wax dëgg yàlla bu ñu wax léegi yàlla kase paa bi amalul kenn xaal ma yàlla si koñ bi waaw ñëpp jàmm la sékkanteeg ñoom bu déggee ñaar nit sax dañuy xuloo moom mooy sol daalam dem jubale leen waaw ñu ñii ñëpp ay doomam fi jàngalul waaw jàngal mu peut def na si moom dara waaw moo ñu yar kom daanaka est-ce que sama xol sax dafa fees. comprendre ndax famille am est bi ni dañoo jaaxle lekkatuñu naanatuñu est bi dañoo wër a wër a wër ba tas ay groupe groupe sax lañ ko def waaw lii moom loxo la nit moom mooy soxal rek di soxalee nit. mais tamit nee ngeen paa bi amul problème ak kenn amul xaar ma yàlla kenn kon j'espère que amul ku ko war a xabtal. mais àdduna dafa yéeme. àdduna àdduna lu yéeme la. nit ki munoo bokk ak di nga bokk ak moom te doo leen bokk sax yoon. peut-être yow lu ngay ut yow sa ga sa sa njaboot nga koy jëmee moom lu muy ut njabootam mais da lay faagaagal di la kal di la def ay business waaw loolu moom mooy àdduna quoi moo tax chaque jour xam nga dañuy ñaan yàlla suturaal ñu kon ko dem nañ ba paay léegi paay si jumaa yi la ñuy def loolu ñun jeunes yi kon loolu la ñu war a def ñun jeunes yi bu yaboo ñu tiit suñu bopp ñun man papa laay laa tudd waaw Diallo Diallo laa sant paa sama papa la sama lépp la. waaw ndax seen kër aw ma fa sens interdit lu ma neex laa fay def man ci koñ bi dëkk fii laa juddoo fii laa yeroo mais soxodante bi dafa bëri si àdduna moom xamee wuñ ko lu dul si si si jumaa ja waaw loolu lañ ko xamee jàng alxuraan ku nekk sa jikko ngay seede man lu nekkul si nit duma ko wax mais dafa metti waa neexul si xol ñun suba ba léegi man dama waroon liggéey sax mais damaa mujjee dagg sama liggéey ndax lu ma paabi bi su ma ko soxlaa day bàyyi itam yëpp ñëw taxawu ma waaw kon tey moom moo soxla te incha allahu rabi ñoo ngi ñaan ci yàlla ak ci jëmm sëñ Babacar ma yaakaar yàlla nañ ko gis waaw balaa ñuy tëdd si lal incha allahu rabi jaay